je pense tey képp kuy nit am nga lu la metti am nga tamit lu tooy sa xol te dama yaakaar ni réew bu demee ba toll fii day baax ngir nit ñi am kàddu ñu leen di dégg ndax même bu nekkee benn ndaw walla ñaar ñu ngi lay bàyyi xel ba soo leen soo waxee mel ni ñoom nga waxal boo jëfee tamit mel ni ñoom nga jëfal fi mi tollu tey ba tax ay bakkan di cural ma yaakaar saafara bi mi ngi tey ci suñu njiitu réew le président de la république Macky Sall man damay ñaan nga àddu ci kàddu ndax réew bu demee ba ndaw fippu di jóg dox doxu ñaxtu di xeex say doomu réew di sànnante ay xeer durante ay bal ba dee ci am ak yàq ak yeneen yi ni mel te mu leer na la ni boo ci jógoon sa benn kàddu saafara jàngoro bi réew mi di dund yëpp tey ndax moo xam muy kilifa diine kilifa aada artiste rappeur footballeur ku mënti doon am nga ay nit yu la gëm ba tax soo waxee ñu dégg boobu tey ñu ngi ñaan du ñu jóg nag ci di ñaan